jaajëfal. 2 millions vies. waaw ci barke Seydina Mohamed ci incha allah mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax soo amee keneen ku nekk ci ligne bi rek ñu daal di koy jël euh, daal di waxtaan ak moom ku nekk rek mën naa ne sa xalaat euh, ngay daal di wax euh, ci la nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee mën ngeen dugg ci 77 227 12 12 ñu daal di waxtaanee actualité yi Aliou am na ku nekk ci ligne bi. allo salaam sëñ bi. salaam. Daya ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax foo jaar. di ziar Kébé. Mhm, mais Kébé xanaa waaru nga de. <laughs> commencé wax di wax ay biddiw ba mu yàgg ngay wax proposition ba mu ba mu yàgg ngay wax position xanaa waaru nga de. <laughs> ñii daal ñoo bari caaxaan rek ñëw di ñu war la ay ay biddiw fii gisuma lii ba mu yàgg ngay joxe proposition ba mu yàgg ngay joxe position. kon kay yow gisoo dara dañ bàyyi seen caaxaan yi corona fii la ñëw lëmbee dëkk bi mënuñu ca eh, du duñu dañuy sóob sax ay sóob lañu ay gis naa yu nekk candidat xoolal li Assane Seck wax ba tax ñu tëj ko ci kaso bi mhm. ne Sonko bu bokkul élection réew mi du du dox du dem élection du am loolu loolu il faut nit ñi gëm ko parce que su wax nga ko sànq Sonko dafa am légitimité la am légalité bi bi bi bi ñu ko bëgg a xañ nag waa réew mi ñoo ko dul nangu. ñoo ngi ay L vingt neuf xaw ma naan dañ cee làq ah, dañ cee làq xaw pour ay ay gis ku ñu gisee contumace. yooyu yëpp ay ndëkk sërëx la yoo xam ne Macky Sall na def lu ko neex na def lu ko saf na ko def. Mhm. Macky Sall wax naa fi bëggul jàmm. bëggul jàmm moo mën ndara yóbbu réew mi ci guuta Antoine Diome puudaru suuy bale la puudaru mbóot la li ñuy def yi yëpp mooy jéem a xoxotal nit ñi xoolal ngañ démb Touré di dem ñu affecté ko ci loo xam ne teguñu ko fenn mu dem ñu dem ñu koy accueil ñu ñu ñu yàq bi yebal ay police foofu loolu mooy lan mhm. loolu mooy lan El Malick ñuy jaax na ñu naan dañ koy dañu koy dañu koy lan dañu koy enquête ñii dañoo soxla enquête Birame Souleye Diop dafa li wax soxlawul enquête n'est-ce pas dafa wax mu leer mu génnaat jéggalu mais terewul dañ koo jël yóbbu ko instruction kooku soxlaati na enquête ah mm. nit dof dafa wax mu leer mu génnaat jéggalu ah ci vidéo ñu jël ko yóbbu ko instruction ñooñu soxla nañu enquête ñooñu kay mënoon nañ leen yóbbu siise leen directement mais loolu soxalu leen ndaa waay allo Aliou maa lay dégg waa ndaa xam nga ker xam nga kii xer xer xer defe naa yow xam nga ko xer mooy loolu di téye sàkket mm-hmm. xer mooy loolu di téye sàkket mm-hmm. parti yi fi nekk yëpp bu ñu jëlee seeni ay xer parti yi daanu maanaam bu ñu jëlee seeni tanoor parti yi daanu mm. mais passif xeer yi jël nañ ko mais terewul tay la gën a dox xoolal lu matul vingt quatre heures Ousmane Sonko oh, joxe fi benn benn benn benn conseil constitutionnel lu matul vingt quatre heures te gis nga réussite bi mu ci am mhm. ñii uyu ma nañu def lu leen saf nañu ko def élection du am ci miim réew parce que légitimité la ñu soxla élection du fi am ci galgal yi ñuy def Sonko élection muudul am bu buñ ko bëggee yaakaar ne nag dinañ ko def comme législative bi législative amoon ñu ngi nax seen bopp te ñu ngi nelaw Macky Sall bëggul jàmm bëggul jàmm ci réew mi moom moo bëggul jàmm mhm. député yi xamoon nañ ne duñu egg du ñu egg si fii lii muy def nii xalaat nii xa bu yàgg la woon parce que daf ne woon député yi jërul ñu leen di jëndal ay oto parce que xalaat na pour dissoudre ko euh, euh, pour tas ko avant mais mais article quatre vingt sept boobu nuroog sama turandoo article vingt sept <laughs> taxu leen a jóg sax lu bari mm-hmm. mais loolu loolu ñu def loolu ñu bëgg a def contimence boobu ñu bëgg a yokk ci L vingt neuf bi loolu mooy wax ji mm-hmm. allo dafa mel ni réseau bi la mm-hmm. est que doo déplacé wu un rek pour que déggante bi mën a neex ah. est-ce que doo déplacé wu un peu. ma ne. Mhm. allo c'est bon voilà. allo. allo waaw Ndeya. da ngay déplacé wu rek waa. tane na tane na wala tanewul. waa tane na ñëwal. ma mhm. nit ñi nañu bàyyi di taxaw ci télé yi di jéema a nit ñi di di def ay manœuvre di di def ay ay ay lu kenn xamul. taxaw fii naan eh, diw Ousmane bi biddiwam bi ma gis mënul nekk na xaar nangam nangam affaire bu sa Seck yooyu ah ba pare nga nga taxaw fii di wax naan na jël diw na jël diw ba mu yàgg ngay joxe say position buñ ñu sonal bu ñu fatt Macky Sall na def lu ko saf na ko def élection du am ci niim réew te Ousmane Sonko bokkul parce que liñ koy galgale lépp ay ay tappale la sénégalais yi xam nañ ne ay tappale la tappale yooyu liñ dul nangu liñ dul nangu parce que ñu réew mi quoi ok dañ bàyyi seen caaxaan yi caaxaan baaxul mag foo ah. <laughs> merci beaucoup Fodjar Yollah ba nga koy jaajëfal bu baax a baax am na keneen ku nekk ci ligne bi allo di leen continuer bi di leen koy like bu baax a baax baax di ko partager ak surtout aussi di abonné allo. allo Ndeye oui. maa lay ziar bu baax yéen a ngi directé. Eh? delloo ziar bu baax waaye yaa ngi naan direct lay bu baax. maa maa ngi lay bu baax namm naa leen sëñ Bara maa lay ziar bu baax Kébé. Alaaji Ndaw Mbuur ñu lay siyaar ba maa yéen si jàmm ñu ngi sant ba alhamdulilah yàlla yàlla dooli jàmm amin amin amin euh, sëñ Bara mhm. gis nga Sénégal mhm. danaa leen wax yii nga xam ne moo ko bëgg yàq muy mhm. nit ñi amuñu dañoo bëri ñu bëri amuñu pas-pas gis nga ko doo ko xal sa yoon di am xel ñaar Ousmane Sonko dana bokk du bokk loolu jëru loolu jëru lam-lamee Ousmane Sonko bu demul ci élection élection du am Sénégal c'est clair parce que dama waxoon euh, Victor dama am benn baat ba ma waxoon keroog ba Macky Sall génnee ne doo nekk candidat dama woote téléphone foofu ci télé bi ne ko Victor yaa ngi big mun naa mën a ko bëggal combat baa ngi doog commencé gis nga Macky Sall dina wax ne du ma def candidature am googu dana ko regretté bu baax parce que kenn xamul lu tam wax ko mais du ma dem candidature googu lu ne ma nekk si biir ndax bu ne képp ko décision teg si tegu sa kaw. da nga ko appliqué kan la décision fi su teg ko comme Ousmane Sonko mu dellu ne lay tax mu doon candidat réew mi dem ci kaaw kon xam na ne moom boo gee jàpp Ousmane Sonko réew mi dem dem ci kaaw boo xam ne kenn du ko mën a lijjanti kon Macky Sall dem troisième candidature am ba léegi paasegul gis nga seen tii bi gis nga seen euh, projet de loi bi mu jox waa assemblée nationale pour ñu wate ko def naa ci benn waxtaan ci suba man ñoom amul rek gis nga ñun ñi nga xam ne ay doomi daara lañ kese xam ne un ak deux heure montant nañ xam ci français ak mari machine calcul ak composé portable ñun suñ jëmi bopp ñun tey kenn gënuñu xam lu waa dana ko def muy réew moo xam ne dafa tugg ci guuta justice bi tëddiwu njaxaanay ay code par code bu nekk dinañ dinañ ko fi indi code boo xam ne ni sax tey dinañ ko wax tubaab yi sànq duñ ko mën a xam dinañ ko fi indi pour la pour éliminer Ousmane Sonko mais wallahi nañ ko ko si conseil casserole bi am barki démb boo ñëwoon Mbour da ngay kenn tukk su bunu saxaj bëréer la da ngay wax ne est-ce nekk fi yaakaar ne Ousmane Sonko bu demul élection ñoom dañuy jël électorat yi Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu demul élection élection mu dul am ñoom am na ci opposition bi ñu ñoo xam ne tey bu amoon seen bopp dëkk seen trente koy jël tabaxee ko kër di ko loué wala ñu jël ko mottalee ko seen i mbir waaye buñ ko defee si élection dañuy ñàkk xam ne du Idrissa Seck du Khalifa Sall du Karim Wade du ma Samba du ma Demba Ousmane Sonko du lëkkaloo kenn Ousmane Sonko du am kenn ku muy teg ci wetam waa ji génne léegi li muy wax tekkiwul dara. ay gisuma ko mu dem président deux mille vingt quatre kooku président si loxol yàlla la nekk waaye ñun candidature Ousmane Sonko la ñu a dana am ci kattanu yàlla nekk président nag kooku si loxol yàlla nekk kooku yàlla la concerné ñun concerné parce que doomu aadama li mu am li mu mën mooy commencé yàlla suñu mooy yeggale yàlla na yàlla yeggale ñun. Hmm. loolu la ñaan mais Ousmane Sonko du doon candidat du doon président nangam Ousmane Sonko mën na doon yàlla na ko àdduna yàlla la wéeru te yàlla ku wéeru si moom kenn mënu laa bamax ba nga daanu na ko bi yow bëgg bu fekkee yàlla amul si moom benn tofel gis suma ku mën a tere Ousmane Sonko sànku neexut a sànk yàlla la gëm yàlla la wóolu ak peuple Sénégal ñun waa peuple Sénégal nag ñun xoolal ndaw ñi ñu ngi taxaw ci wetam ku ko bëgg laal ñu laal la ku ko bëgg toroxal ñu toroxal la ku ko bëgg yàq ñu yàq la loolu du ci allier du ci dëttu gannaaw bu ñu yàqee ay éléments yi njaay ñi gis yëpp ñu boo xoolee bu ñee defante amul kenn ku ngeen di gis ci defantekaay bi amul kenn ku ngeen di gis ci mbedd mi Ousmane Sonko ñi tee Pastef di ko xeexal kenn xamul fu ñu nekk loolu moom damaa bëgg ñu xam ko Pastef amul kenn ku ko mën a rey amul El Malick Ndiaye jàpp ko jàpp Massamba jàpp Bassirou Diomaye Faye jàpp kële dinañ jàpp gi nga ñooñu wax wax ñu ay Dakar lañ ci parti bi ñoom ñoo fi ëppee tur waaye teewuñ parti parti bi parti Pastef defante tax mu jàll te ñuy defante Macky Sall xamul fu ñu nekk kon damaa bëgg ñu teg seen baaraam foofu xam ne lii ñuy def ne du solution xam nga solution mooy lan mooy nañ bàyyi caaxaan yi ñu nekk nañ bàyyi ku bëgg dem dem ku man sa morom yenu si kaw ba sa kaw dóor si suuf mais lu ñuy ragal nañ bàyyi booy bu mu dem ku ñemee dugal ci làng gi ku mën sa morom duma mais jeex na nii yow ay wo woote procédure loi ay dialogue yi yow amul benn njëriñ dialogue mooy kabe téye mu dëgër ma téye mu dëgër ndaayaa téye mu dëgër ñu ne nañ dajee waxtaan trouver solution mais ki nga xam ne moo téye mu dëgër këcc mooy Ousmane Sonko bokkul si jorob bi kon affaire u ya Sénégal yi la doon def fa affaire u naxante la affaire u business u deal seen deal bi nag toj na mooy projet bi ñu war a wate assemblée nationale nañ ko wate ba mu neex leen Macky Sall kenn bu ko neexee day tas assemblée nationale Macky Sall li mu bëgg mooy indi royaume toog fi ba faw wala mu teg fi jabaram wala mu teg fi kenn ki jigéen la muy jabaram jàpp nañ ba maa leen ko wax. jërë ngeen jëf yal na yàlla may ñu fanaanu jàmm. merci beaucoup laaj naa ñu euh, bu baax a baax a baax soo amee keneen ku nekkaat ci ligne bi comme ni ñu koy waxee chaque fois dinañ continuer di like euh, live rek di ko partagé day nekk lu am solo am na ku nekk ci ligne bi allo. te ñu ngi dellu ziar.